góor gi ak góor Abdurrahman ci walu confiance di ko chargé yenni yi ma dem bu joté ma wax ko mom mi mook Mustafa dem bolé len ak Sidina Omar ni ñu dem doxal ma nangam waaw loolu lolu ñoko mom seen cër la loolu day rek doonu ci dara wa so tabaarakallahu avec désintéressement bobu len ma xamone ci góor Abdurrahman ak effacement bi wa tabarakallahu ci lolou lay defee tarbiyaam soxlawul gis ma soxlawul dara moom daal buñ ko yónnee ni ko sëriñ nee rek jeex na man kon ñu ñaanal ko ci yàlla ak ko bokkal yàlla di ci ak ku ñu am fa kon na ku ne jàng fatiha clôturer année année de la jeunesse. de la jeunesse waaw. mu ngi si bu la dara metti. bu uh-huh. la dara metti. waaw wallaay ndeysaan wallaay dëgg la. Uh-huh. foofu la toll wallaay wax na dëgg. Mm-hmm. sëñ Babacar Si amul woon ci moo diggante ma Maodo. Mm-hmm. Euh, sëñ Cheikh amul ku jigéen sëñ Babacar. Mm-hmm. lu yomb nga am ko si diggante. mais c' est pas possible ça C'est pas possible C'est pas possible C'est pas possible mais bien sûr wallaay. mi ngi may ma ngoog wallaay wallaay dëgg la am incha allah am incha allah am incha allah am incha allah am incha allah am incha allah allah wallaay ndeysaan yàlla yóbbaale ñi ñun ñëpp ci biir wallaay ndeysaan moom kay tabarkalla eh lu baax du doy <laughs> lu baax du doy ndeysaan lay ndeysaan ni ngeen bëggee ma continuer toog waaw wallaay ndeysaan barakallahu hmm, hmm. aha hmm, wallaay ndeysaan war nañu. ndax fii ku fi ñëw ku ne. andi woo fi sa bopp ñu laa tànn. wallaay ndeysaan wallaay. waaye gàddu nee na. ñu tànn la baax na. waaye nga fexe ba tànn na. wallaay ndeysaan. nga fexe ba tànn. ma kaana lahumul xiyara. ah wallaay ndeysaan wallaay ndeysaan. ndax. nit koo xam ne. manees naa compter ci yow. lañu soxla. boo jegee boo sori yëpp mën nañoo compter ci yow. yow. Mhm. Ah, ah. Hmm. wallaay ndeysaan wallaay ndeysaan wallaay ndeysaan wallaay ndeysaan san wallaay ndeysaan wallaay ndeysaan barakallah moom day xam naa xër gi rek waaye ki lay ki lay yéene boot ba abadan kooku du yëg ni sax def nga dara ndeysaan dafa tolloog rek yenn yi pour bëgg nit ki góor góorlu rek waaw pour bëgg nit ki góorgóorlu rek waaye na koo xam ni fas yéene di la boot ba ba waaw loolu la yéene ndeysaan waaw te ku boot sa sa sa sa sa nag ya muy def ca gannaaw ca la bokk wallaay ndeysaan wallaay ndeysaan waaw ku boot sa nen muy def ca gannaaw ca la bokk waaw tabarakallahu c'est une façon de parler ah ça suffit largement ah daan na kon nag rek yàlla nañu yàlla yokk sutura yàlla yokk tawfiq yàlla sàmm ñëpp zahiran wa batinan tabarakallahu kenn ku ne yàlla xam moo gis moo mën a natt moo xam li gën ci yow yal na ko yàlla def te mu dajeeg la la gënal waaw te mu dajeeg la la gënal waaw yal na ko yàlla def li ci des yëpp jarul di ci jaaxle waaw mu leen fàtte mës naa leen ko wax waaw ni leen cuuj rek mu nekk ci biir neen ba pareegul neen rek la ñuy tudd waaye bis bu paree bay génn nag day toj nan ba ah toj ba rek ah, ko jarul inquiété inquiété stratégie stratégie la tudd stratégie stratégie la tudd léeg-léeg dem ba ñi sax ni stratégie fii la amee fii la soxe waaw attention góor

ma dugg naa ci ba yegg si fii ma léeg-léeg nit dana sacrifié wu sax pour ñi ci des sauvé waaw waaw man waaye yow bu ko def mukk waaw may naa la ci ndigal ndeysaan daan na kon nag ñett xamuñu waaye ñaar xam nañu ndeysaan ndeysaan tabarakallahu yoo am na xam ne noonu la gëne sax waaw noonu la gëne nit ñi xamuñu sax lu xew am na jamono yoo xam ne dama daan tiit pour tàgg ko ni ko maa ngi voyage

bu ma defee kayfiya bi ba noppi waratu ñoo joxante loxo waaye comme tàllal naa sama loxo mu mu mu rus ma delloo ko mu jël ñaari loxoom nag def ma nii ëmb ma waaw lay ndeysaan waaw ëmb ma waaw ma xam ni fi mu ne nekkatu fi sax waaw bu sañoon boot la yóbbu la waaw waaw lay ndeysaan da wallaay ndeysaan xaa ko xam naa ko waaw na ko xalifa mbay bii niko mo Moustapha dafa bare non lol wallahi ndeysaan ah wallay ndeysaan dafa bare non lol wallahi ndeysaan ay xam nañ ko waye nak gisuñu kenn ndax yàlla ak mom nak wa deug yàlla wa dan na tabarkalla du fi jóg du fi jóg inshallah da asa ak asa wallahi wallay ha wallahi wallay wallahi wallay كلبا الله استاذ سامبا جوبي بس بني مودي بكو رابالي الله ديسان كان الزمان بكم كلبا فغادركم بالسيف والدهر فيكم اشهر الحرم ها هم قالوا لي كان خمول لا لا الله ديسان شات الله ديسان ايسان وتولوا له الاشهر الحرم xam nga sañatuloo def dara waaw ah, ci ñu ko dégg ci wàllu sharia waaw ah, sañatuloo def dara bu la nit defoon yenn itam noon nga koy pardonné ndax foofa kenn sañatu ko waaw ah, ci lañ daan arrêté guerre yeeg yëpp kenn sañatu la def dara waaw boo tolloo foofu nag sañatoo def dara nag jamono ñëw nag wàkk la waaw jamono ñëw wàkk la te sañatoo def dara walla ñu toll

bi may ñëwee kenn ku ne fekk naa fi sa lettre sant yàlla la asa rabbukum an yajala baynakum wa bayna alladina aadaytum minhum mawadda wallahu qadirun wallahu ghafurun rahim na yàlla ñu ko yàlla defal yàlla wetali yéene yi ñu ngi leen di naajal ndeysaan am naa bu ngeen sañoon ñu yendu wallaay ndeysaan wallaay wallaay waa xanaa ñu baril jataay yi rek waaw bu dara toog bi nii rek sax def koy jar waaw di ko renouveler rek léeg-léeg chaque deux mois ñu def daje bu mel nii rek waaw waaw tournée yi moom xëy na dañ koy def pour rek sagu waa roq ba waaye lii ëpp naa xeeb waaw ëpp naa xeeb ndax wale leen waxoon ni jamiatu ramadan biñ koy def nii pour ñu def ko loo xam ni dootul yemati ci weeru koor bi waaw jamono bu nekk rek ñu renouveler ko te itam dafay am solo ndax di xam yëf yi dafay am solo ci yokk pas-pasu nit keeg wa huwa maakum aynama kuntum waaw day sànq baatu aynama kuntum boobule mooy lan waaw parce que ay niya bi du makaan waaw delluwul ci makaan waaw mu ngi dellu ci sifaat yi waaw man a yàlla kenn ku ne la mu yëg ci yow rek loola lay àndeeg yow yëg ci yow rek loola la yaandeeg yow waaw waaw day ne kuntum bi du ci barab yi mais kenn ku ne la mu yëg ci yow rek ñu di la ko jox nag façon yi ku ne ñi nga xam ni ci xalq yi la leen di séddi ak ñi nga xam ni ci wàllu safwa te la leen di séddi ak ñi nga xam ni ci nubuwa la ñi nga xam ni ci xususiya te la leen di séddi étape par étape boo tollee ci xalq bi ba ci safwa bi moo lay protégel boppam moo lay di foo tollu mu di ko du bëgg lu la jege bu nubuwa bi duggee rek mu lâché la bàyyi lu ñu lay def mu ñëw waaw te bu ñëwagul nag du nangu weñ laal la waaw waaye bis bu la joxee nubuwa ak risaala nag bàyyi yépp ñëw waaw du tax mukk mu ñu détruire la jamais abadan waaw ndax kon dañuy détruire des te du ko waaw yooyu yëpp ñu di la jàngal par euh, leçon yu mel renouveler ñu di renouveler yu bare la yu bare la yu bare la naa buñ rek ñuy di ñëw rek cours ba yow nag yal na ko yàlla mottali incha allah waaw dëgg la aha aha aha wallaay ndeysaan hum hum hum hum sifaat yi ñu ci soxla. kenn ma ñu ngi ko topp nag boobu ba léegi. mu bañ. wante yow ci ñun ñu déggee. sa diggante ak moom. njabootam nga. te ni nga ko soppee moom la la soppee. ñu mu nangul lu lool. préparé. lu mu bëgg ñu tabaxal ko. lu mu soxla ci alal ñu di ko mu liggéey fa ba am ci résultat. lu toll ni li mu am ci Moustarchidine ci Sénégal. su paree foofu. ñu affecté ko feneen. ndeysaan. lu mu bëgg ñu defal ko moom loolu. mu ni ma boobu ba léegi ñu koy topp hmm. nanguwu ko ñu bëgg yow nga dimbali ndeysaan xam nga man hmm. du war sama dëkk mun lay ndeysaan diggante bi bi may ñëw hmm. laata may ñëw costume naa fi may naa fi ay biir ndax yaakaar ni su wax la ko nga def lii nga def li ma ñoom li ma leen tontu du bokk ak li ma lay tontu yow ma la ha nga ni ma gis nga loolu yépp pare nañu pour defal ma ko tey su ma soxla ay milliards ak ay château ñu defal ma wante xalifa liggéey boobu yëpp su ma ko paree ñu versé ko ci ci compte qiyaada islamiya aalami te man du ma liggéey lenn lu ñu versé wu ci sama compte compagnie. la la la dëgg la. ah. bëri ci démb. wallaay la événement bii amee. wallaay ndeysaan li ma jëkk a jox. ma ni qulubul aashiqiina. lahaa uyuun. wallaay ndeysaan maa laa yaraahu naadir. wallaay ndeysaan wallaay ndeysaan. ndax ku wekk woon ca foofee. wallaay ah. wala ci xew wallaay. فما آتاني الله خير مما آتاكم <laughs> بل أنتم بهديتكم تفرحون اي مو دي سنتي يالا رك سنتي يالا رك سنتي يالا ديغا كو واخي دغ لا صاح دي مان كاي فاتليكو سي غناو توتي نيغا توك سي دبي الله ياك اي ملياردير رك الله ديسان ني وقتان ني انفيتي ما رير الله ديسان keroog la gis benn ci milliardaire yi ko xam ne lu ne jàng na ko waaw euh, way na ba way chanson française boobu si si tu n'existais pas <laughs> maanaam wax kook man maanaam ni ma boo boo amul woon sax ma jéem la créer waaw yegg na ci wax ak man loolu ndeysaan keroog waxtaan nañ fa waxtaan yu sore am kenn ci ñoom di nettali nag gént gu mu mas a gént yonent bi ma ne ko ñaati yoon nga ko gént mu ma benn yoon ma ree ma ne ko dafa tuuti benn yoon dafa tuuti mu ne waaw lu tax ma wax ko ñaati yoon laa gis yonent bi ah ñu ciy waxtaan nag ba yegg ci jamaalu yonent bi jamaalu lan la xam ko du jamaal jasadi jamaal ruuxaani la waaw waaw waaw waaw ko du ay am na du ñu rafet rafetu mel ni ñëpp naan taar bi déedéet lii rafet ci ñoom mënoo ko tudd

yegg ci wax lu ne mel ne waa dinaa ci réfléchir ñu jox ma rendez-vous ci suba ga gisuñu ma waaw nan laa jëlee sama avion ñibbisi waaw wax la tax na kon sant yàlla rek sant yàlla rek am na loo xam ne kenn du ko am ba noppi di wutee ci leneen abadan waaw du teree nag moom sagu yëf yi moom lu mu laaj rek nga def ko waaye nag seen borom ñoo la ciy jàppale incha allah boo defee kon nag rek yal nañu yàlla jàppale ku ne jàng fatiha jàngaat lii la fi Quraysh jàng ayatul kursi jàng euh, falaqi ak naasi ak salaatul fatiha ñu def ko ci sunu kilifa yu baax yi ñaan yàlla rek ñëpp yal na leen yàlla wallu te yàlla tënk ñëpp ci biir tarbiya bi yàlla téye pas yàlla leeral dënn yaa xel yi yàlla barke liggéey yi kenn ku ne yàlla di la jàppale zahiran wa batinan ak koo am waaw ci barke mag ñi incha ñu ñaan ko ñëpp ñi tew fi ci suuf ak ñi ci kaw ak ñi ñëwul ñëpp ñu ci seen yene yag yëpp yalla nako yalla mo mottali kon xana ñu def nonu ba ila al marra al qadima insha allah waaw bismillah